waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 Production le leader dans son domaine. ah lii ñu am lépp tawfeex sëriñ a may. gën noo gàtt sëriñ bi. yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri soog a dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa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 mu mel ni tey ñu ngi fii si Fass Mbao di si bésu sëriñ Moustapha Al Karim bi nga xam ni waaye di màggalu Fass Mbao mu yàgg koo def ànd ko mbokki taalibe yi mu mel ni dañoo toog ak sëriñ Cheikh Mbuub bi nga xam ni moom moo yor wàllu communication bi ak lépp loo xam ni dafa jëm si bés bi. xanaa ñu gannaaw bi ñu ko nuyoo bu baax te leen siyaare leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax xanaa bëggoon xam solo bis bi sëriñ bi kañ la ko tàmbali ak nan la ko amalee ak mbokki taalibe yi ak mu mel it année bu ne des ciy rendre hommage ñi nga xam ne ñooy ay waajuram wala ñi nga xam ne àndoon nañ moom ci liggéey bi mu mel ni rek bëggoon nañ xam de manière générale bis bi kañ la ko tàmbali ak nan la ko àndeek mbokki taalibeem ak taxawaayam moom sëñ bi ci gox beek mbokki taalibe yëpp bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayiduna muhammadin wala alihi wa sahbihi sa na wali wali barke borom taif mbokk yi jàkkaarloo ak euh, Tawfekh Production ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. du leen nii di leen ziare tey teg nuyoo bi ak ziar bi ci loxol kilifa ak yoon wépp muy fadalu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sa borom mu defal ko gudd fan te dolli ko wér ba mbooleem lu mu naalal lislaam mu motali ko te bu geestoo gis ñu. di joyal nuyoo bi ci sunu kilifa nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te toog euh, jotaay Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim muy sëñ Ahmadul Muxtaar doo ngi ñaan sa borom mu dëpp ko kattan te dolli ko wér ndax borom bis bi lu mu man rek sëñ Mahmadou Ahmadul Muxtaar la kon nag nu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko wér di siyaare njabootu Cheikh Ahmadou Moustapha gi yëpp eh, am mbégte bu baax ci li nga xamante ne eh, laaj nga ko muy eh, cosaanul bis bi mbir mu nekk dafay am delluwaay kenn ku ne xam na ne Cheikh mu Moustapha al Karim mooy njëkk a wuutu Cheikhoul Khadim en 1927 les grands projet du mouridisme yëpp moom moo jeté les bases mooy ki nga xamante ne moom moo ko jëmmal kon euh, la wax mbokk ma doon wax naan Serigne Touba yenn ku yan la doy na ab yan euh, kon Cheikh Mouhamadul Moustapha moom mi nga xam ne moo njëkk a wuutu Cheikhoul Khadim moom moom la ñuy bisal bis bi ki koy bisal nag amul lu dul moom. yaakaarul ku dul moom benn bët la am Cheikh Moustapha la koy xool ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tuddoo li ko wër te lu man ren bu déwénee mu man lu ko ndax ku xool organisation bi xool fa ñu newoon daaw fi ñu ñëw nga xam ne ku yokkul da ngaa wàññi kon moom lii muy def seex Cheikh Modou Moustapha nangu na ko te mbir bu fekkee da nga koy defal euh, jëmm ba ka nga xam ne moo toogal jëmm ja teewee ca joxe ci ndigal yaakaar naa ne booba bis nangu na kon Cheikh borom fondation Al Karim Touba Fass Mbao ñu ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal suñu borom dolli ko kattan te dolli ko wér. ndax euh, euh, wax na ma léegi ni ma Cheikh ma ne ko Mbacke mun ma jënd yitte rek rek rek moo taxaw ma taxawal bis mooy wane Cheikh Modou Moustapha kon loolu pas-pas bu kawe la. ndax Cheikh Moustapha bi mu fi bàyyi ko ci Zahir booba mag ñi ndaw lañu ndax euh, il a tiré sa révérence en 1945 dara du ci hasard ndax bërki dem rek. lañ doon euh, euh, euh, féete ñetti fan baraxlu 1945 yi nga xam ne ci la wàcc ab liggéey kon ñaari fan wala ñaari fan moo ci tege bis bi ñëw kon dara du ci hasard muy jëmm joo xam ne nii liggéey dundam gépp daf koo def ci liggéey Serigne Touba. yàlla dogal sax ak dundam guddul sëñ Modou Moustapha il a vécu cinquante huit ou cinquante sept ans xam ampleur responsabilité bi mu gàddu ndax li ma wax ne sëñ Touba yenn sëf la yenn yan la rek doy na ab yan. waaye moo ànd ak ngoram ak jomam ak fulaam ak faydaam ak ndimbalu sunu borom ba accomplir sa mission abi brio kon yittey bis bi mooy wane sëñ Modou Moustapha le premier khalife de Cheikhul Khadim wajur sëñ Cheikh Amadou Mbacké Fall wajur sëñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne moom mooy wasilaam di léppam kañ la ko tàmbali ñu ngi ci 21e bis bi Cheikh Moustapha 2003 la ko andi Dakar Touba Mbacké ga mu dëkk fa Daaru Ndiaye fa la ko tàmbalee waaye mbir mu ne day yokk te sëñ Touba mbiram amul tànki eh, gannaaw tànki kanam rek am ba mu xoolee ne war naa gën a liggéey si sëriñ Touba fii ci Ndakaaru nga xam ne c'est la eh, capitale du Sénégal mu andi bis bi Ndakaaru di ko woote Cheikh Modou Moustapha yaakaar naa ku ñëwoon ci les premières éditions da xam ne les présentes éditions xam na ne ak yokk am na ci ndimbalu sëriñ Touba am na ci xéwal am na ci. yi nga xam ne njëkk ko laaj mooy l'historique eh, de la célébration ak maanaam li nga xam ne moom mooy li ko waral. waaye di jël nuyoo bi ziar bi di ko teg ci sunu kilifa sëriñ Moustapha Ndiaye alkarim mu jottali ñu ko mbooleem ku teew ci jotaa bi waaye di yëkkati suñuy kàddu ci sunu ndigalu waajur muy Baye Malick Diom mi toog dox ñu ndigal ngir ñu yëkkatilu ko ay kàddu waaye kàddu yi mënul weesu kàddu sant ak kàddu ngërëm ak kàddu yoo xamante ni xëy na dox na ci kóllëre goo xamante ni am na ko ci digganteem ak sëriñ bi mu doon kóllëre goo xamante ni kóllëre gu yaatu la te dara lalu ko ludul jëmmi sëriñ bi dong tax ñu bokk gox bi dëkk maanaam ci dëkkinu anam mu rafet waaw sëñ Malick nag nee na mu ngi sant bu baax sëriñ bi di ko ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal sunu boroom dolli ko kàttan dolli ko tawféex ba lépp loo xamante ni mu ngi koy mébét ak di ko séntu suñu borom defal ko ko waaw nee bis bi it maanaam dara taxul ñu amal ko lu dul ngir sàkku ci ngërëm waaye tamit sàkku ci maanaam dajale mbooleem taalibe Seexul Xadim yi ci gox bi kon nee na mu ngi koy ziyaar bu baax di ko santaat bu baax a baax ci taxawaayam te di gën a feddale bu baax a baax kóllëreem digganteem ak sëriñ bi cheikh Moustapha al Karim jërëjëfati cheikh Modou Moustapha jërëjëfati cheikh Moustapha cheikh Moustapha Ndiaye al Karim jërëjëfati dimbali gi nga dimbali gox bii tey ku xam li yàllay wàcce fii tey xam li yàllay wàcce fii ci ndimbal bu ñi fi yendoog ñi fi fanaan ak ñiy dégg rajo bi war nañoo saxoo jërëjëfe cheikh Moustapha ndax yàlla kat moo waxal boppam ne ku ma sant ma dolli la segam ñii caaxaan ñoo ko mën a fësal parce que maa ñii ci dëgg te damay faral di wax ne ak mbaax a nga yem ci Cheikh Moustapha mooy le premier personnalité di yoonu Mouride Cheikh Moustapha al Karim Serigne Touba ko waxal boppam asalaamualeykum Cheikh Moustapha xalifatul awal la ko Serigne tubaa wax personnalité ak fit ak jom mu ngi weesu ci bi mu tiimee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dane ko ak am fit ak di ngor ak am jom valeur ak personnalité la Cheikh Moustapha dimbale yoon yëpp dama koy faral di wax ne ak lu mën a xew ku dul Cheikh Moustapha toogoo ci séddub sëñ Bamba ginnaaw Cheikh Moustapha ku toogati ki toog ci séddub Cheikh Moustapha nga toog waaye Cheikh Moustapha moo toog ci séddub sëñ Bamba defar yoon wépp lu jumbanti lépp ba lépp toog féexe te kat Cheikh Moustapha mii ngay sant di ko wane daa nuroog Seyduna Muhammad sëñ Tuubaa noonu na ko Rasulullah ameel bor boo gisee Cheikh Moustapha na la fay danoo nuroo lépp ba nuroo ci lépp Seyduna Muhammad wax naa ko maag Cheikh mbakk Mbow mii ci seen TV rasulullahi Aminata la ndeyam tudd Cheikh Moustapha Aminatu la ndeyam tudd Cheikh Moustapha al Karim Seyduna Muhammad juróom-ñaari at la am génn àdduna Cheikh Moustapha juróom-ñaari at ndeyam génn àdduna rasulullahi ndeyam lañ njëkk a suul ca bàq ya Cheikh Moustapha ndeyam njëkk def ci armée di Touba yi Seyduna Muhammad ñeent fukki at la toog nu boobu bi tàpp ci moom Cheikh Moustapha al Karim bi mu amee ñeent fukki la toog di sëñ Bamba yàlla ci ñeent fukki at lay yónnee damaa wax ne bi Seydina Mohamed génnee adduna ñeenteelu xalifaam mooy Seydina Alioune Cheikh Moustapha Al Karim ñeenteelu xalifaam mooy Sëñ Aliou Mbacké kee sañ ci Taïf kii sañ ci Taïf diggante Taïf ak mooy diggante Taïf ak Màkka bu dul rasul lay nuroo nanu nuroo nag bu demee ba ci ngangal ma xool bàyyil mooma mooy Seydina Mohamed arfin bi arfin njaboot gépp mu njaboote leen am personnalité am valeur kon Cheikh Moustapha Ndiaye lii nga defal Fass Mbao defal ko bokk yi defal ko jullit yi nu ngi yalwaan yàlla ci darajey cheikh mouhamadul muntaxa yàlla na nga yàgg la in zakartum la azidannakum waaye la kafartum la dendal te gaa yi duñ ko wax yàlla nee na boo ma santee ma dolli la waaye boo ma xarabee dama lay duma cheikh moustapha mi yey sant ku ñëw bis bi nag xam ne ku sant dolliku bis bi melutoon nii de wax naa ko léegi ak sant day des ku jaar ci sa buntu kër bi nag yaa ngi yeewee bu dee sawar moo raw ku ne fu mu rek di kunkuni ngir bëgg lislaam jëm kanam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 ak cant bu yemee ci bis ba cant ga doxut ñu ngi nii di xolli taal nan mbane yi nag yaa ngee yeewee amin ta xarimaam yaa ba xarimaam Cheikh Moustapha al Karim yaa dis gor yaa di murit amee kër am ciment am fer bi nga paree kër sëñ Tuubaa nga ko def loo am jox nga ko sëñ Bamba Daaru Xudoos kër sëñ Bamba waaye bu la sëñ Tuubaa dajeeg yow nga xam ne moo man a fay yaa gën a xam ne sëñ Tuubaa mën a fay yaakaar dose ci sa kër gii ku yaakaaram lu mu bari bari bu duggee xam ne yaay borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen siyaare bu baax a baax a baax di di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi sunu yaakaar sëriñ Moustapha njaay alkarim ah, di ko santaat bu baax a baax di ko ndokkeel ci bés bii lii nag nekk uh, lu am solo wax dëgg yàlla màggalu sëriñ Mouhamadou Moustapha uh, ibnu Khadim Rasoul ah, ñu koy def ci Ndakaaru ci Touba Fass Mbao ci njiitalam ah loolu nag wax dëgg yàlla doy na ak sant yàlla maanaam kuy liggéey sëriñ Touba ah ba day ak sëñ Moustapha Ndiaye a ah, di nga xamante ni ah, fi mu teg tànkam foofu rek la kon ñun sëriñ bi dañ lay ñaanal nga gën a gudd fan gën a wér ba liggéey liggéey nii suñu borom defal lu ci lu kaay sa a ah, li sëñ Modou Moustapha di séddale nag yàlla bu la ci kenn ëppale. ba mu demee ba fekk ko muy seexu nit ñi ne tirim seex Moustapha ci ak leeralu leen kii mbiram da leen nëbbu ak weeru ku nit ñi di ko xam au contraire da koo sigal ségalu ko da koo sagal mu daa diru suur nam sagal tol na inna jatug ndongam da leen ni maa ko yónni woon di ko ñaanal yàlla ci barke sëñ Fallou mu gën a lu mu gën a am rek mu gën a doon jàmbaar ak waa fondation bi yëpp nak parce que lii nag moo ko liggéey si koñ bi bi fi bi mu fiy ñëw fii bi fiy ñëw fii ñi ko wàccee jëmm ji si la bokk te boobu ba léegi arrière kon lii Ndiaye dañuy ñaan yàlla mu gën a saawaan baawaan ci barke sëñ Fallou waaw man nak waa fondation bi laay gën a sant dañuy ñaan yàlla at yii di ñëw Ndiaye nga ñaanal ñu ñu bari ay milliards. sa loxo génn ci ñun ñu jëf ko loolu rek la ñu dese ak yow sagal nga ñu sagoo nañ la barki sëñ Fallou saawaan luubal bàyyi fab te bu ko weeroon dootu jub jur gu ne daa amoo yatam bind ne kaamil yu ne xos te du ci yër benn ngir bu ca ba genn xoos soq na ba teesal dogal wuutu sëriñ bi doy na ndam indi ko Touba doy na ndam sa sun jumaa ji doy na ndam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi amati mbégte di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke mi nga xam ni moom la ñu xoole tey jëmmi Cheikh Moustapha ji ñaanal itam sëriñ Abdul Xaadir Ndiaye ak mbooleem njaboot ak sëriñ Daaru Asan gépp waaye itam di yëkkati kàddu yu nuyoog siyaar teg ko ci loxol jëmm ju tedd jëmm ju sell ji nga xam ni moo di alkarim di Cheikh Mouhamadul Moustapha Ndiaye ci bés bu mag bés bu am solo bi nga xam ni bésu sant la bésu ñaan la bésu fàttaliku Cheikh Mouhamadul Moustapha di tural yaakaar naa mu koy amale fii ci Fass Mbao ci cité Mandela loolu nag tax na ba ba ñu xëyee tey mi ngi wéy waaye itam tey ci àjjuma ji di bés bi nga xam mooy bésu sant gi moo tax bi ñu ñëwee yaakaar naa sëñ Cheikh Mbacke Mbuub jaar nañu ci mbana yi muy ceeb yi jaar dufe yi mi ngi nii mis yaa nga ne ca gannaaw lépp nag ngir sant Cheikh Mouhamadou Moustapha waaye itam lu jiitu alquran xasaayit istixfar salaatu ala nabi ak mbooleem xeeti basmala yëpp ci baas bi moo tax soxna yu tedd yi nga xam ne dañoo bokk ci fondation Al Karim ànd ak Serigne Moustapha ci liggéey bi ñoo ngi nii ñoom itam di ay ndaw jël seen tànk teg ko ci tànki Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim soxna euh, mami ñu bëggoon nga yëkkati kaddu rek tey ci seen taxawaay organisation bi ak yëg-yëg bi nga xam am ngeen ko tey ci bés bi ak ni ngeen gisee Cheikh Moustapha ci pas-pas ak taxawaay ak liggéey bi nga xam ngi koy def ci waxtasimo bi xam ni laa jëmeen wala ta faraxu ñëpp àndandoo ci génn buum gi muy lislaam tiijaan a ngi fi murit a ngi fi xaadir a fi laay na ngi fi gii cant mooy cant gi gën a rëy ci Dakar goo xamante ni gii kenn nit da koy def di ko defal Serigne Touba yaakaar ci Fass Mbao moo ko gën a def ban yëg ngeen ci bi asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñoo ngi julli ci yàlla di sant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi sant tamit Serigne Touba suñu yaakaar tey ak ëllëg di sant sëñ Moustapha Ndiaye parce que tey lii yëpp moom la yëg nañu teg nañu fu ñu war a teg te doyloo nañu tamit lépp lu ñu soobu moom moo ca gën lépp lu ñu soobu moom moo ca man dañ koy ñaanal rek bés bi lépp loo xamante ne ni bëgg na ko ci yàlla na ko yàlla defar si barki borom Touba ñu ngi koy sant bu baax bés bi nag ñun ñi waa fondation Alkarim préparé nañ ko bu baax macha allah te ñoo ngi nii def suñu sañsa yoo xamante ne yu yànj la parce que ne nekk si waañ bi dinañ nekk si waañ bi incha allah si kanam tamit dinañ nekk ci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 harikalla alhamdulilah harikalla alhamdulilah waaw waaw jërëjëf yàlla yàlla na waaw waay yow de yaa xam li xew yow mi ne maa ngi lay ziar ci màggal gi ndax li dootul ak cant ak màggal ku ku xool lii nga xel dem ci bettu daaru xuddoos nga xamante ni màggal Cheikh Moustapha daal la ñuy màggalal rek jëf mbokk yéen ñi topp Tawfekh Production ak yeneen yu mel na ñoom ci bisub Cheikh Mamadou Moustapha Ndiaye Al Karim bi nga xam ne yitte ju kawe joo xam ne war na Cheikh Mouhamadoul Moustapha ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xalifa ñu ngi taxaw ak madame Mbacké ak tam madame la mairesse madame Ndiaye bu baax di leen rek euh, sant ci taxawaay di xool rek naka ngeen taxawoo waañ wi gis nañ ne sëñ Modou Moussa dafa ñëw faas Mbao ngeen dalal ko mën ngeen yëkkati ay kàddu jëmale ko si moom. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullah waa ñun waa Touba Fass Mbao noo leen nuyu di leen ziar di leen sant bu baax a baax seen teewaay di ziar sunu sëriñ sëriñ Moustapha Ndiaye ni ngi koy ziar bu baax di rafetlu taxawaayam nag ci Fass Mbao waaw sëñ Moustapha dafa ñëw defal na lu jafe lu raar loo xamante ne yombut a am gox bu ne bëgg na ko muy màggal Touba màggal Touba Fass Baaw macha allah at bu jot mu ko fii def mbooloo bu takku di ko fi si wuyu si nag mu doon màggal gu am solo waa Touba Fass Baaw cité Mandela di ko rafetlu di rafetlu taxawaay bu baax a baax màggal gi bu jotee macha allah waa Fass Baaw cité Mandela ñëppay génn. ndax taxawaayu sëñ Moustapha taxawaayam bu rafet ci Fass Baaw taxawaayam bu rafet ci Ndakaaru taxawaayam bu rafet ci Sénégal nit ñi xam ko bu baax a baax ci lu rafet li muy def ci réew mi macha allah nu ko ci sant bu baax a baax sëñ Moustapha amuñu fayam ni koy sant di ko gërëm bu baax a baax li lay rafetlu seen taxawaay yéen it jërëjëf madame Ndiaye madame la mairesse xam naa boo mën a jege tuuti rek dafa eh, mel ne yaa ngi woon si waañu yaakaar naa tey lii moom li ñu ko gis bariwul eh, mooy ah, eh, le premier magistrat de la ville muy muy la madame la mairesse ñëw sol ay gaawam ne ci liggéey bi loolu yaakaar naa li muy am bariwul tey jii gis nañ ne vraiment bis bi am na lu mu dolli Fass Mbao man ñu jëg ngeen am yéen li nga xam ne yéen kilifa yi ah xanaa kontaan rek kontaan macha allah di rafetlu taxawaay sëñ Moustapha ci Touba Fass Mbao ndax bis bu day nii bis bi màggal Touba Fass Mbao gi sëñ Moustapha dañu baachal tante bu mag bi di ko baasal Cheikhul Khadim fii ci Mandela defuñu lu dul kontaan di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax màggal gi moo mujj sëñ Moustapha mi ngi ci ngénte yi mi ngi ci dëj yi mi ngi ci takk yi lépp loo xam ne Touba Fass Mbao xew la nañ ko rek jëmm ji dina fa teew ku sa jabar am doom moo ci gën dana la indil ceeb dana moom bu yegsee rek maanaam daanaka yow sotti na xanaa sam rek nga jënd daa tudd sa doom macha allah ñuy rafet lu taxawaayam ci Touba Fass Mbao nee naa leen sëñ Moustapha mi ñun ñoo ko war a jàpp ñun baas bi bu heure bi jotatee ñun ñoo war a takkaayu laxasaayu lépp lu ci war a def ñu dem ko ci ndax tàntal Cheikhul Khadim baas bu day ni sëñ safaa di tànt fii macha allah waa Touba Fass Mbao am nañ njukkalu sëñ safaa ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di kontaan di kontaan ci yéen ah di ziarewaat di kontaan rek kontaan boo xam ne am na commencement waaye amul Moderne Maison. daayira yi nekk dem ci alxuraan ji nekk di dund Serigne tubaa ci yéen ngeen di ay wayjur ban taxaw ban gis-gis ngeen am ci moom ci taxawaay boobu. taxawaay lu ko rek rafetlu ko rek ndax kenn ku nekk xam na ne euh, ay xale fu ñu daje te liggéeyuñu jànguñu ña nga ca la ko sudul noonu sëñ Moustapha nag ñëw taxawal daara ji mag ñi ndaw ñi amul kenn. koo xam ne des nga ñun suñu doom yaa nga fa ñun mag ñi sax ñoo ngi ci njàng mi kon nag ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax xale xam nga ne bu jàngoon rek dugg ci du la ko su dul noonu te sëñ Moustapha tey taxawal na fi daara joo xam ne xale yaa ngi ci xasaayid yi bu toogee ñaari fa ñetti fan ne nañ leen ziare ji Touba ñu ànd ak moom dawal mu teg bis yi gaare bis yi ñun ñëpp ñu dugg jëm Touba kon sëñ Moustapha defuñu sant ko di ko gërëm قنيت اليوم عبدا بذكري وأني أطوفنا روى النار وسبا نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا وأكتفي وهو مؤمن وواسع wa barakaatuhu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ma sante yàlla ci Moustapha sant sama ñaari waajur maa ngi waxal waa Mandela yëpp muy groupe soppey nabu bu Cité Mandela bu Adja Ourey Diop mii di suñu présidente tubaarkàlla macha allah Mbagne Diop Mbadio nga yàgg ñoo diriger zéro fa sans défaut nag yaa ngi maa ami jëng mi yàqu leen Mandela barka Xaadim Rasul sëñ Moustapha mii ñëw fi nag bu yàggul rek liñ nag ah, ku ne la la bàyyi ci nit moo ko moo ko moo ko ca def xamul noo koy def na mu la defa tax muy xale bu baax xale bu yaru xale bu respecté nit nag xale bu jox nit gëddaam ñun ñii mag ñi nag mu teg ñu place man sëñ Moustapha dama naan jaay ba ñëw mu fekk ma ca tali ba dugal ma ci oto mu indi ma ba sama buntu kër gii yëkkati lu baree baree baree baree bari jox ma te bu ko neexoon nag mënoon na ko caa bañ a fekk nag te man dong nag maa ko wax ñëpp la moom dafa maas nuun gi kon sëñ Moustapha boo bëggee yegg yàlla na la fa yàlla yeggale. fekk ci sëñ baax ñëw fii nag ci Touba Fass Mbao ànd ak waa Mandela macha allah baax lool bëgg Cheikhul Khadim di sëñ Tubaay kese nag sëñ Tubaay kese googu nag moo tax loo jëmban mu sax tabarkàlla macha allah sëñ Moustapha foo bëgg egg yan la fa yàlla àggale yow waa cité bii ñëpp la fonk ndax sa jeex ci sëñ Touba yow li nga wax li ngay def dëgg la ci yow bu dul woon dëgg doo ko def man du ma gërëm ku ma defalu dara man passé naa foofu tubarkàlla macha allah. kon sëñ Moustapha yàgg fi loolu te wér barke Seexul Xaddim Njaay foo bëgg egg yal na la fa yàlla àggale man lu ma bëgg wax ci yow rek xeeb ndax am nga ci man fonkeel am nga ci man cër bëgg nga ma tabarkàlla macha allah da nga gaare sa oto suma buntu kër nuyoog man saafonteeg man yëg man te soo ma yëgul woon ni sëñ Moustapha ma jàpp sama njaamu tax ma xarab la mukk ndax ñoo bokk Seexul Xaddim mbokk Cheikh Moustapha tubaarkàlla macha allah nga bëgg nag sëñ Ahmadou Makhtar sunu sëriñ bu baax bi. jëf jërëjëf sëñ bi sëñ bi li nga wax mën naa ko nangu ndax ñëpp la woo. woo na Laayeen woo na Murit woo na Tijaaniya woo na Xadija Xadriya woo na ñëpp kon sëñ Moustapha xaajalewul te sëriñ Touba mi nu gëm xaajalewul sëriñ Touba ci mbir du Tijaaniya la jëkke dem ci Xadriya tabarkàlla macha allah ba Rasulullah jox ko weerdul maxfuus mu am ci lu mu am am ci ilaa yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq ah di nuyu nag eh, sëñ Moustapha Ndiaye alkarim sunu sëriñ bu baax bi tubaar fakala macha allah mi nga xam ne tubaar fakala macha allah bu mu duggee ci Fass mbaaw gi ba tey ah wàññiwul dafa yokk sëñ Moustapha Ndiaye baax na loolu moom mooy géej gi am na ndox ba mu ñëwee ci Fass mbaaw gi dafay def fi kenn deful wax fi lu fi kenn waxul nekk fi nag ku feebar mu jàppale la ku doog nekk ci tolof tolof mu jàppale tubaar fakkaat la macha allah nekk fi nag lu mu ñaanu rek baaxul yàlla may na ko dara yàlla na ko yàlla lafal cat ba pare def loo xamante ni nag c'est rare ñëw ci Fass mbaaw gi def fi màggal sëñ Modou Moustapha boo xamante ni kenn amul loo ci laam bañ na ko ba xale yi léegi dañ ko def sax euh, euh, euh, annuel chaque année dañ koy waajal ñii préparer ñii ñawlu ñii xotti ñii def lépp muy woo nag nit ñi te wooweewu leen ngir alal wooweewu leen mooy def alalam mooy def dooleem mooy def yéeneem mooy def pas-pasam ñun ñii di jigéen ñi nekk ci Mandela gii di waa groupe sopp sa jëkkër man may géwalu jeunesse bi daf ñuy woo ba ñu ñëw bu xew a xew bu xew bi jotee nañu boo leen amul sax ay mbubb ma daggal leen ay mbubb kon kooku yéene la am ci bés bi sëñ Moustapha dina def ba mu baax bu bés bi jotee dina rey xar dina rey bëy dina rey ginaar gëléem yaa ngi ne di yeewe ak nag yi day rey rey rey rey ba yeew fi bu xëyee suba ndaxte day bis boo xamante ni bisu seere la nit su dee def lu baax ci koñ ba muy jógee Touba wax naa ne yaakaar naa bokk naa ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci ñi ko influencé ba mu ñëw fii kon yaakaar naa ma xam ne toujours bañ koy xam Touba ab yar lañ ko xamee teggin lañ ko xamee dara am lu sensé amut ci jëmmam ji dara lu may màgg dara sensé wu ci jikkoom jëm yoroon ba léegi moom la yor kon nag su dee def ci nit ñi lu baax nan bàyyi nit ñi ñu seere ci ñoom li Serigne Moustapha wax ci ñoom ndax tey jii day Serigne Touba ci gox bii di jëf doxinu sëriñ Touba di jëf jëfinu sëriñ Touba kàddoom di sëriñ Touba dara génn ci sëriñ Touba kon soxna si yaa jiite euh, waañ wi mis wi ñu bëggoon a xam ne na ngeen waajale ak seen digganteek Cheikh Moustapha Al Karim Moustapha mii nag ñun day kenn si ñun ndax man de bokk naa ci ñi nga xam ne ma bokk naa ci premier dëkkandoo mi man bokk naa ci premier dëkkandoo mi mu dëkk fii ñu jàkkaarloo su génnee teg chaise am fee ma teg sama chaise ñu bokk di waxtaan waaye moom dëkkam fii njëriñ la bu bu rëy rëy rëy rëy ndax am na lum ñu jëriñ te man mi mën naa nekk seede njëriñ si seede njëriñ si mooy juddu naa ba am ñeent fukki at ak juróom mosumaa jàng école rek laa jàng maa mhm. mi diplôme waaye jàngu ma woon alxuraan mhm. jàngu ma dara mais moom mu indi fi daara daara ji jàkkaarloog man tax ma ni damaa bëgg a jàng ni nit ñuy jàngee damaa bëgg a fer ijji mhm. ñetti semaine laa jàng fer kon moom laa koy sante bu baax a baax a baax ndax bu ma jegewul woon noonu mën na am ba nii ma toll du ma feet ijji te tey maa ngi jàng alxuraan maa ngi jàng xasida ngir yàlla jëmmam ji kon moom dëkkam fii njëriñ la bu baax a baax a baax a baax te man mi xam naa ko baax te bu njëkk ba tey waañ bi sensé wu ma keroog bañ koy commencé muy bés bi at édition bi njëkk ci fii ba tey maa yoroon ji te ba tey ba tey la ma yoroon day yokk waaye wàññeekuwul benn yoon te du wàññeeku mukk ndax kuy liggéeyal sëñ bi tànk kanam rek ay amul tànk ginnaaw. jërëjëf mbokk yi ba tey yéen ñi nga xam ne yéenay topp Tawfekh Production ak Daaru Ndiaye TV noo ngi fii ci événement bi nga xam ne mooy 21e édition euh, sant Cheikh Amadou Moustapha Al Karim fii ci Touba Fass Mbao Cité Mandela. sunu mbokk taalibe Cheikh Amadou Moustapha Ndiaye Al Karim Cheikh Mouhamadoul Moukhtar. Euh, euh, ko Serigne Am ñu ngi lay nuyu di la ziare Am Diouf moom mooy responsable li nga xam ne moo jëm si wàllu organisation bi rawatina fi ñu toll mu wàllu bernde yi. yaakaar naa bi may tàmbali maa ngi doon juróom fukki mbaa juróom-ñett waaye yaakaar naa ëpp na ñeen fukki mbaa nee naa léegi Touba Fass Mbao gépp waañ lañu bu nga xam naka ngeen saytoo waañ bi gis nañu gàtt yeeg macha allah li nga xam ne maanaam taxawaay bi jëm ci waañ bi daal waaw ah, li nga reeral oh, ndeysaan ndeysaan waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah, naan leen sëñ Moustapha Ndiaye mu yàgg fi te ànd ak wér amiin yaa rabbil lépp lu mu naal sunu Cheikh Xadim bi yàlla na ko yàlla def ñu ànd koog moom amiin yaa rabbil alamin ah, am kàddu goo xam ne naa ko wax tey ndax dama dégg question bu ñu posé fee léegi mm. ñuy wax sëñ Moustapha Ndiaye lan la indi fi a xale yi mm. dañoo ñëw sampi ay baar si koñ bi moom mu ñëw sampi ay daara dañoo ñëw sampi baar moom mu ñëw sampi daara daara yooyu tey moom moo dem ba suñuy tuutànk ñun lim sax soxna si wax li laay laay dëggal rek suñu tën tànk de ma wàcce kaamil barki dem moo njaay si jouru kasura jàpp ñu wàcce kaamil ñëw na si bés bi naa lépp ak te daara ji la tàmbalee si fee gis ne ba mu yóbbu ko wax si yaru li nga ne moom la indi yar bi indi ba muy ñëw nag di teg mbanaam yi naa ñu bëri xeebu woon nañ si jëmmam ci salam mm-hmm. doon teg waaye tey yaakaar naa ñëpp far daw nañ fekki ko si li muy def te xam ne dëgg rek a wóor te li muy def lu dëgg la parce que sëñ Tuubaa li def rek a wóor buñ benn mbana tey ñu ngi si ñeent ñu ngi juróomi nag ñaari gëléem téeméeri xar euh, fukki xar ak juróom di mooy ak téeméeri ginaar tey jii teg nañu ko. tey dara du manqué barke sëñ Tuubaa ku ñëw di nga xiwlu. jëwriñu mbooloo mi. Cheikh Moustapha damaa wax ne jëwriñu mbooloo mi kat day yell mu def nii ndax ko amit ku takku ñu takkul la ku takku ku ne ñu takkul la waaye damaa wax ne bésub Cheikh Moustapha bii ci maam Cheikh Anta lañ ko mës a déggee. keroog bi Serigne Touba dikkee ci maam Cheikh Anta ne ko lëlal ci bis bi mu ne ko li may sant yàlla mooy ni ma ko bëggee laa ko mënee ba mu jógee ci maam Cheikh Anta ci Cheikh Moustapha Ndiaye al Karim di ñaanal nit def ab bis ne bu kenn di dërëm tey ko mës a gis fii ci Touba Fass Mbao Serigne Touba dimbalee ñu ko mbooloo mi bari lool ah, bari lool mu ñëw fi ngir liggéeyal sëriñ Touba oyof lool soxlawul ay kenn bu nit le comme ni ko soxna yi waxee ma nga ca taalibeem yi ñoom jëwriñ am ay Xaadim Ndiaye nekk nit ku laabir ñoom Moussa kenn ku ci nekk topp ko fu mu nekk ñu ànd ak moom ci liggéey bi dar ko ànd ak moom ci liggéey bañ koo bàyyi Serigne Moustapha ñëw na dimbali nu boole woon murit yi dëkkan Louga ak Saloum ak Ndar Xaadir Laaye Tidiane murit ñëpp mu boole leen Fass Mbao da leen kaay leen ci liggéeyam yàlla bi julliti yàlla yëpp da leen di woo tariixa yëpp daf leen di wo borom Touba barki borom Touba kontaan nañ trop waaw bis moom màgg na barki yeneen bi bég nañ trop nag. waaw def suñu délégation bu baax ñëw ngir bëgg a jëmmal bisu sëñ Moustapha Ndiaye Karim di ñaan nag ñu koy gën a mën sak at saa yu ñu ciy def luñ mën ak luñ mënul barki borom Touba waaw sama gaa yaa ngi nii nag ay jànkat lan waa lobu maam jaaral naa dañuy xam naa dañuy xaw a di nëbbatuwaale gaa yi rek waaw waaw waaw comme maanaam ay sikaru laag man moom damaa xaw a barke yonent bi. jërëjëf Serigne Touba. jaajëf Serigne Saliou jaajëf. jaajëf Serigne Saliou jaajëf Serigne Saliou jaajëf. jaajëf Serigne Saliou jaajëf. jërë ngeen jëf mbokk yi. ginnaaw nag bu ñu dégloo kàddu yu seere ak kàddu yu témoignage yi nga xam ni moo bàyyikoo ci ay euh, mbokki taalibe waaye tam di ay jëwriñ yi fasantikoo ñëpp kenn ku ci nekk tey feeñal sa mbégte feeñal sa kontante waaye itam feeñal sa digganteeg Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim jàmbaari Serigne Ahmadul Muxtaar ji nga xamante ni moo jël léppam jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye itam Cheikh Moustapha fay ko fay goo xamante ni bii ñëpp teg nañ ci seen bët tey ndax ba muy laxas di takk di ñëw fii ci Dakar daa laxase na ma ngi doon laxase jëm gànnaar sarsaaraak fu mu di doon fas-fas boobu rek la amoon tey suñu borom dogal na ko lépp lu mag ñi doon am moom mi tey jëmam ji yàlla def af def na am na ko fii yàlla na ko yàlla fal cat ci barkeb Seexul Xaddiim ba mu àggale ab liggéeyam moo tax nag tey ñeen fukki mbana ak lu topp moo xam ceeb moo xam mis wi moo xam mbaxal moo xam moo xam lépp xeet yu ñuy jëfandikoo tey wër nañ koo pare Serigne Moustapha ginnaaw bi nga xamante nag wër nañu euh, waañ yi ba jëwriñ am mi ko jiite leeral sara li ci am lépp kon yow itam ñu bëggoon rek nga yëkkati kàddu ban yëg-yëg nga am kon ci cant gi ndax fi mu toll ñi ngi ci 13h waaye tam lépp ni añi daanaka am pare na lépp sotti na ñu ngi sant Cheikh Moustapha nag yaa nga nee yeewee alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci ab yonante Moustapha alayhi salaatu wa salaam di santaat Serigne tubaa te di jaayeen di gën a feddaliwaat sunu pas-pas ak sunu jaayante ak sunu yaakaar ci Cheikhul Khadim Khadim Rasoul mm-hmm. di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yàlla bàyyi ko fi balim naa lool Serigne Touba lépp yàlla na ko def di ko ñaanal Cheikh Ahmadoul Moukhtar moom Cheikh Moustapha al Karim mi sunu bunt ci Serigne Touba di ñaanal sunu kilifa yëpp nag di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci bis bu màgg bu tedd bii nga xamante bi ne tey ji jii fekkeete nañ ko ren mu war mu ren ji war a toll ci ñaar fukki at ak benn ba nu tàmbalee màggalu Cheikh Mahamadoul Moustapha gi ak ak ren ndax ñu ngi ko tàmbalee atum 2003 di ko dundal nga xamante bi ne a jaarit teewul màggal gi maam màggal nañu ko mhm. ba ci atuñ corona bi sax màggal gi ñun dajee nañ at mu njëkk ma mille vingt 2021 dajee nañ fii ci kër gi rey suñuy gàtt wàcce al jàng alxuraan ay kaamil alxuraan da jàng xasida yi sëriñ bi dundal bis bi yendoo ko wut ay tonni ceeb séddale ko waa koñ bi mhm. muy ay ndimbalu yaatu yoo xam am 2021 noonu lañ ko dundale woon 2022 mhm. nga xam ci lay daanaka 2022 euh, euh, daanaka mooy atum corona mujj mi donte jamono yi jamono yooyu état bi aaye woon dajaloo gi bañ bëggoon koo màggal ci kër gi far yàlla dogal ñu ne ajjuma eh, mu tombe woon aj màggal gi tombe woon bi samedi ñu ne ajjuma ci la état bi dakkal na lépp lu mu aaye woon kenn ku ne mën naa nekkaat say activité ñu ne kon donte ñetti fan a ci des waaye danañ baas danañ rey ay nag danañ dajale mbooloo mi màggal ndax bis bii moom ñun du yëg métti jamono ci sunu wet bis bii kenn du ñëw ci màggal gi ne sëñ Moustapha kat jamono daa xat wala jamono daa metti moo tax màggalam gi mel nii mu mel ren doo ko ci gis mukk incha allahu rabbi ndax biis bii jaral nañu jaay lu nu am daf ko ci ndax ki nu ki nu koy defal ginnaaw bu dogalub yàlla jàllee jàpp ne na ñaqal ko lu ñu am ci àdduna moo nu ko may mu ñaqal Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké man de xam naa lan lañ liggéeyal waaju baax di jariñ xam naa bu baax a baax liggéeyal Serigne Touba lu mu jariñ man xam naa ko bu baax a baax a baax a baax la la la Serigne Mbacké bu sa waxoon wala la Serigne Saliou waxoon daane man de liggéeyal sëñ tubaa du ma ci yërëm kenn ndax damaa xam la ci nekk ak fay mm-hmm. ñun ne dafa mel na ñun fayu sëñ Tuubaa moom ump ñu fii ci adduna kon nag yomal xiyaama akbar gënu jëmit noonu rek lañ ko amee waaye daal bisub tey bii moom bisub mbégte la bisub jaayantewaat la suñu diggante ak sëñ Tuubaa fas yéene doon ay taalibe sëñ tubaa ba faw ba faw ba faw fas yéene liggéeyal Cheikh Mouhamadul Moustapha ban ñuy ro ban ñuy dugal ci biir suuf loolu rek lañ fas yéene dese suñu dund gii maanaam nag euh, sëriñ bi bis bi sant naa ci yàlla lool mm-hmm. lool lool lool lool maanaam fii may wax ak yow xir gu ci mbooloo mi xir daanaka boo dee xool boo yëgoon tey ci kër gi ca kaw mel na aw waaña nga fa soxna yu bëree nga fa ndax boo dee xool jëw ni waañ yi sax soxna yi sax day mel gisoo leen fii ñoom ñëpp ña nga ca boo demoon kër soxna faat daaf gee soxna yu bëree nga fa kon nga gis ruqub soxna ummi si bii gis nga noonu ñu mel kon dafa mel ne màggal gi waxumal na teraanga yi li ko tàmbalee ci beñe kafe suukar boisson ndox lépp loo xamante mag gi dañ koo soxlaagun gisuma lu ma ci jënd man gisuma lu ma ci génneegun sama xaalis ci yii ma lay wax ne jënd ko nag yi noonu lépp rek luy xeeti teraanga nit ñi wommat nanu ci lu ci lu war a defar bis bi indi ko ci màggal gi kon nag noo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax màggal gii bu doon màggal gu ñuy pokore woo la wala màggal gu ñuy wan waa adduna sépp la màggal gii kon mën naa gën a demee nane nuru nii mu demee nii waaye màggal gi màggalu pas-pas la màggalu feddle ak ruu moo tax nii rek lay demee lu nu ciy fekk dañu ciy fekk waaye nii ko gaañu waxee ren jii dama leen waxoon ne leen carte yi carte defaroon nañ sax ay carte invitation nga xam invitation lañ ko tuddee woon bëggoon koo jox ay nit man leen boo ko joxee nit day jàpp ne sax da ngay mhm. nañ bàyyi carte yi nga xam carte yi ñu tiré woon ba léegi mi ngi sama nekk génnewuñ ko joxuñu ko kenn nga xamante ñun suñ màggal gi fas yéene tuñ cee jox ay carte loolu duñ jox kenn ab carte nii ñii ñuy fàttaliku seen waajur yi mu loolu mosoo koo dégg dama leen képp koo xam ne dañuy fàttaliku sa waajur ci màggal gii boo defee ñaar téeméer ci ambuloo andi ko joxe ko ci màggal gi ngir fàttali gi ñuy fàttaliku sa waajur ci bis bi lii ni ñaanal sa baay wala sa yaay ci bis bi yàlla bu sa baay jot loolu laa leen wax mhm. kon màggal gii ñun ñi koy woote yàlla ak liggéeyal sëriñ tubaa lañ ci jublu duñu ci dara waaye liggéeyal sëriñ tubaa nag ñun li ci ay njariñ li ma wax léegi umpuñu kon sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax sëñ bi di sant waa Fass Mbao gii nag ndax ñaare màggal yi mel nii ñu bëree bëri buñ koy def dañuy jël ay traiteur ak mhm. ay ay toggukat ak mhm. ay raxaskat ak gisoo fi kenn koo xam ne la man dañ maa jël engagé ci ci bis bi jëluma toggkat jëluma raxaskat jëluma ab feeskat lépp ñoo ko jaayante ñoom ñii ñoo génn ñoo wut mbanay génn lépp te teg mbanay togg seen i togg mam war na mu war a mel lépp la ko dale ci bërki démb ci àllarba ji démb ci alxames yi ba tey jii ci aljuma ji lan mooy secret bi secret bi mooy bëgg sëñ Tuubaa ñoom ñii xam nañ ne man sëñ Tuubaa rek laa bëgg xam nañ ne moom sëñ Tuubaa jaral na ma lu ne fii fii démb dama leen koo wax ne leen lii ci Sëñ Tuubaa lañ koy gisee ci bis bi suñ bisu Sëñ Tuubaa bi lañ koy gisee ci koñ bi buñ ko gisaatee waxtu bi daal dellusiwaat déwén kon nag sant nañ bu baax feddliwaat nañ suñu jaayante ak suñu bëgg ci Cheikh Mamadul Moustapha lépp rek jëm ci Sëñ Tuubaa waaye nag di ñaanal borom daaru Xuddoos ma dul Muxtaar Mbakke nga xam ne léegi la ma sëñ Ahmadou Muxtaar doomam woo téléphone ne ma sëñ bi de woo na ma suba sax di ma soññi bis bi nga xam fa mu nekk ci daaru Xuddoos moom de xam na ne mun ta ñëw ngir magge ngir tànk ya waaye fa mu toog bis bii rek moo ko ñor fi mu nii bis bii rek lay bàyyi xel sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér moom sama diggante moom doonut lu ñuy wax kenn ndax àdduna sépp xam nañ ko fi ma teg ak ni ma bëggee ak li ma ko jaral man li ma jaral sëñ Ahmadou Muxtaar loolu ñëpp xam nañ ko bis bii bu ma ci dogo woon ne fa Mbàkke damaa bëgg lu mën a xew ñëwal barki sëñ Modou Moustapha dana ñëw moom lu ma lu xam ne sama bëgg la moom sëñ bi daan moo ko defal man ndax moo ma ko wax ma waxal boppam moo ma wax boppam lii may seetaan lii may def ni dañ en ci internet bi sëñ ahmadou muxtaarum sëñ moodu moustapha moo ma wax ci lamañ boo xam ne moustapha ma ne ko mbàkke fu la bàyyi war a féete te amoo ko soo ko su ma ko su ma ko su ma soo ko amut dama ko yëgul fu la waajur war a féete la muy bàyyi muy nday fu waajur sa waajur war a muy sa waajur wu góor wala sa waajur wu jigéen soo ko amul dama ko yëgul man man loolu mag ma ko waxoon 2012 de màggalu Daaru Salaam ak 2012 ci guddi màggal bi su tànn di la tombee loolu guddi googu la ma sëñ ahmadou muxtaar wax keroog loolu mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko may wax loolu mënumaa jënd pneu vélo bis boobu yi guddi googu keroog bi ma koy wax xaalisu àdduna yoruma ci ñaari junni li ma yor xaalisu àdduna lépp mënu mu ne ma Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ma lu la waajur war a defal soo ko amul rek dama ko yëgut loolu sëñ Ahmadou Moutar wax na ma loolu kon Mbacke man man ab jaamam rek laa war a doon ku koy liggéeyal laa war a doon ab soldaaram laa war a doon ab xaamiram it laa war a doon kon Mbacke yàlla la fi yàgg lool te wér kon nag lii lépp daal lu ci ab yool jébbal nañ ko sëñ Modou Moustapha moom moom màggal gi jébbal nañ lépp togg yi alxuraan ji xasida yi basmala yi istixfaar yi salaatu ala nabi lépp lu luñ ci def yàlla na yàlla jotale yool bi Cheikh Mamadul Moustapha ak mboolem jullit yi nga xamante bi dañ leen di fàttaliku ci bis bii te seenu nekk ci liggéey bi ba ci sëriñ Maju Njaayam Cheikh Babacar Njaay Cergaan nga xam moom it dañ koy fàttaliku ren ci te loolu nag li ma koy ni ma koy waxee rek liñ ci jublu mooy xam nañu ba am na lu ñu xam ci moom mooy sëñ baab sëñ sëñ Madiou Ndiaye moom Cheikh Babacar Thierno ak bëggam Cheikh Mamadou Moustapha ak doon taalibu sëñ Modou Moustapha bu ko liggéeyal bu lax ngërëmam kon daal sëñ sëriñ bi tey jii ñun ñëpp xam nañ ni dëkk bi fees na dell kër gum gan mos a dal ci màggal gi tey ren dal na fa kër yoo xamante bi ne ni man mii di wax ak yow ba ma dëkkee ci koñ bëgg dugg gu fi daf naa fi fukki at ak ñaar yoo xamante bi ne ni ñaar benn weer ko manqué benn weer wala ay ci manqué ndax le 12 avril bii ni ñëw laay def fi fukki at ak ñaar waaye am na kër yoo xam ba tey jii ni dugguma fa waaye fi may wax ak yow romb naa ay kër yoo xam ne nañ ma fii lañ dar ren mm-hmm. te kër yooyu dugguma fa man ba ma dëkk ci koñ beeg léegi kon ren jii kër yu mus am ay gan ci màggal gi am nañ ay gan tey kon nag alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sant naa bu baax te te te nag li ma ci gën a neex mooy kër yi ngay dalal gan yi yow daa mel ne ñoom ñoo gën a bëgg far mm-hmm. ñoom ñoolo gën a bëgg da ngay dem ñu ne sëñ bi frigo yaa ngi nii yaa ngi nii néeg yaa ngi nii lépp a ngi nii génn nañ seen kër jox nañ ko gan yi kon nag sant rek te mosoo gis genn gan gu ñëw fii nga daala ko ci ak kër mu ñibbi naan ñëw ñëwaat bu ñëwaat yi dem naan nañ ma santal dal musta am dañuy taamu sax kër yéen daan dal kon nag jërëjëf maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax màggal gi amul murit amul tijaan amul xaadir amul laa laayeen waañ wii li fiy taalibee seex kenn xamul nu mu toll waaw kon nag alhamdulilahi rabil alamin rek nañu gën a góorgóorluwaat gën a jàppantewaat gën a boolewaat suñu bopp te jëm yàlla rek sant nañ bu baax muy rab muxaddimun xadimun lahu mulkun awasa xawal xarba najaati min al-a'daa'i wal barri wal balaa xariban wahidan min afiisin malal jurbaan hadaani ta'aalaa baana maa kittu haalikan بجاه الذي خسينا الهجن والغرباء أنادي في سر وجار وأرتجي سلائي وإسلائي بالأعلى والتربى سللت لولا للعلا ثم كانني وكنز كتاب نبو يصف الكربى سللت لولا للهدى ثم كان mbokk yi jàkkaarluñ ci dañu seetaan ci ay site internet ak ay télévision yu fasantikoo ñoo ngi wëy ànd ak yéen ci bis bu am solo bis bi nga xamante ni bisub ñaan la bisub sant la bisub mbégte la bisub faj aajo la bii nga xam ni Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim liggéeyaa konu Seexul Xadim Xadim Rasul fajkatu aajo bi moo koy amal fii ci Fass Mbao cité Mandela. ñëw ngeen fi ñuy sant di ñaanal euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha Al waaye tam nag ca kanam tuuti dana am benn xadaratu jumaa boo xamante ni dana fi am fii murid ak tijaan ñëpp àndandoo ko ci kanamu sëñ Moustapha Ndiaye Al asalaamaaleykum. mbokk julli di mbokk taalibe yi may di nuyu di leen gërëm di leen sant di sant sëñ Tuubaa Seere Faal di sant sama sëriñ sëñ Moustapha mu sëñ Modou Balla Dior sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp kii nag kenn la koo xam ne ci ñun baax mun ta su baax ndax li ko ay maamam dénk ay baayam dénk ko ko mi ngi koy matal yàlla jëm kanam ndax gox bii mu ñëw sant dinañ ko gërëm nañu ko mboolem lu ëmb Fass mbaaw kenn ku ci nekk am na lu mu def ci yow muy dooleem di alalam di xam-xamam la ma waxoon rek jàpp ci social boo xam wallahi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci def social boo xam ne président waroon na koo def ministre waroon na ku ne waroon na koo def waaye xaaru ci kenn la ma waxoon rek boole na dooleem ak alalam yépp di ko def ngir lu neex jullit yi wax nga ko léegi sa biir wax lépp li fu nit sëriñ su baax si bàyyi da ko feddali feddali bi mooy da ngaa lim murit lim xaadir lim laayeen lim ñëpp waaye bis bi tey chrétien sax a ngi fi loolu nag ak mbaaxam moo ko waral man nag su may wax ci moom du sori ndax dafa am dama am cofeel ci moom muy sama sëriñ di sama lépp def ci sama doom ji lu baree baree baree bari muy Modou Diop mii jàppewu ko taaliba jàppewu ko dara ko jàpp comme ku mu bokkal ndey ak baay. dëgg la ginnaaw yàlla itam ay waajuram moo gën ci moom. yamalu ko ci moom dong nag ñi mi àndal ñëpp taraangaam rek lay ànd ak ñoom boo jàmbatee mu def boo jàmbatul mu def gudd fan ak wér lañ koy ñaanal. yaa yaa baax yaa am kóllëre yaa bëgg ñi ngay àndal yaa fonk ñi ngay àndal. yàlla yàlla yàlla dafa gudd fan. looy wax ci rek baax mu ta paase baax gudd fan la lay ñaan ak wér. lépp li nga sàkk def ci bis bi sa maam ñaa ngi ko def ay ati ati at barke borom Touba. Mm-hmm. ñaan rek lañ man ñu ngi lay ñaanal rek yàlla yàlla yàlla may mm-hmm. jërëjëf. day mel ni délégation bi euh, kilifa gi wax na ko sëñ Ibrahima sëñ Modou mii damay seere ci moom keroog bi ñu àndee dem ci kër sëñ Ahmadou Mokhtar ci ziar bii jàll laa xam ne ab murid la li sëriñ Moustapha def ci moom li nga seere nii tey moo tax ma koy seere ndax ba jël ndaw ñi di leen jariñoo wala di leen liggéeyloo wala di leen laaj alal di def ci boppam déedéet ñaqu boppam lay jël def ci ndaw ñi ñoom ñi ñëpp seere nañ ko keroog sëñ Modou dafa daanu jël man maa ko dama koo fekke maa ngi leen di fayam nuyoo sëñ Modou di nuyu it uh, sunu kilifa yu baax yi toog sëriñ Cheikhouna Mbacké di sunu nijaay ànd ak sëriñ Modou Kiman Diop ak uh, rakkam ju baax jee ñu àndandoo tamit ñoom xam ne bis bi seen bisu boppa ñu ñëw nii ànd ak fas yéene ànd ak ñun bés bi lépp ci am mbégte lool sëriñ bi ñaan suñu borom gën a taxawal gën a yàggal taxawaay bi ndax lii kat day day day da lay yokk jom yokk la aw fit ndax nit moom bu nekkee ci barab dafa nab nabi ba man faa taxawal lu toll nii mm-hmm. dem ba gis ay mbokkam ñu ñëw rawatina mbokkam yoo xamante ne dañoo doon ay mbokk deretam ba noppi di ay sëti sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu tawféex la eh, ndax loolu moom tawféex yi suñu borom lay doon nag ci jàmm ndax sëriñ bi moom la sëñ Moussa Sali waxoon bu yàgg rek daal ne sëñ Tuubaa nit ñi ñi ñi bokk ak moom ta tànnuñu bokk tànnuñu ko ñoom. Mm-hmm. sëriñ bee tànn kon nag alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. di sant bu baax nag eh, sëñ Modou ci kàddu yu rafet yi nga xam yëkkati ngeen ko te mu jógee ci suñu mbokk yu baax yii nga xamante bi ni ña nga jógee ci Cambérène. Mm-hmm. di njabootu Seydina Limaamu nga xam barki démb rek la ñu jógee ci appel bi ñu àndoon ko ak ñoom. te woon fa nii ak njaboot gi mm-hmm. ni ma leen ko waxee karaw rek bis bii moom li fi ak noo ngi ñoo ngi ñoo ngi dund ak fu mu mën a fekk ak lu mu ñu mën a fekkee mm-hmm. danañ ko bàyyi ñëw ànd ko ak yéen loolu nag mm, li ci jiitu rek mooy rafetal sunu mbokk lislaam gi nga xamante bi nii yàlla dañu ko boole mm-hmm. rawatina waa kër Seydina Limaamu nag nga xam ne ñoom moom yaakaar naa ne kenn ku ci nekk xam na seen diggante ak Serigne Touba rawatina Baye lay Thiaw mi fi jóge rek bu yàggut nga xamante bi ni moom boo demee këram danga nga ko fekk Serigne Abdou Lahad Laay da nga ko fekk Serigne Cheikh Mbacké Laay Gaynde Fatma da danga ko fekk Maam Jaara Laay kon nag kooku moom dundal na lool waxi suñu borom yi mu wax ni na ngeen jàpp ci buumu yàlla gi te bañ a tàggali ko kooku moom dundal na ko lool moom Baye lay yàlla na ko yàlla gën a dolli leer dolli koy xéewal ci barke maamu yu baax ya ak waajuram yu baax ya soxna si noo ngi bég lool ci taraanga ji di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu bokk leen gën a sàmm bu baax ndax lii mun adduna moom ku yokkut rek yaa wàññi kon nag eh, eh, sëñ Modou mii eh, nga xamante bi ne nii daanaka mën nañ ne lii lépp ci moom rek la sababoo ba jataay bii bépp di am ab taxawaayam rek moo ko may loolu ndax njaboot gi moom yaatu na waaye nag ràññeeku na ci loolu ci liggéey bi waaw ràññeeku na loolu ndax tey jii liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa fii dootoo tudd ñaar Euh, doo tudd ñetti nit yoo xam moom bokk ci te mën naa bëri nañu ko ci jiitu lool waaye bi mu ñëwee ci liggéey bi fi mu ko fekk ak fi mu ko yóbbu loolu moom ñun ñëpp leer nañu mm-hmm. di ko ñaanal bu baax suñu borom gën koo taxawu te gën koo sàmm te jël xamal ne suñu xol sedd na ak sedd na ci moom lool nag maa ngi leen koy seeral di ko seeral waajuram wu jigéen wii di ko seeral waajuram wu jigéen wii li xamal ne suñu xol sedd na ci moom bu baax a baax a baax a baax boo xam ne na xam ne li mu bëgg li mu bëgg ci addunaam ala kulli alin dana ko am loolu moom maa la ko wax li mu bëgg ci àddunaam dana ko am ndax ab jaam nag du wàcc boromam des ab jaam du wàcc boromam des yàlla du naxe du nax kenn te du sànk du sànk du sànk yëfi ab jaamam ab jaamam yàlla du ko sànk ku ko liggéeyal dana la fay te moom nag jàmbaara lool ku pas-pasam rëy la te xam naa bu baax a baax cofeel gi ak bëgg gi suñu jëmm nga xam yemale ak dara waaw li ma wax fii démb rek di ñi nga xamante ñooy sama mbokki bopp yi nga xamante bu ne nii ñoo dëkk Touba ñii di samay doomi baay ñi ma bokk ak ñoom jenn waajur wu jigéen ñoom ñëpp ñu jaayante ak man e, jox ma seen bopp loolu li gën a jafe ci àdduna loolu ci la bokk ñoo xam ne yéen bokk benn waajur yenn waajur wu jigéen ñu mag la ñu doon say mag jaayante ak yow jox la seen bopp dax taxawal ab daayira bu mag tuubaa su bis bi jotee ñu dajal seen addi yu takku ñëw fii démb tax a toog ci kanamu mbooloo mi di jaayante waat ak yow di fedliwaat seen pas-pas nga xamante bi ne nii fi ñu egg sama diggante ak ñoom sama jëmm jii bu laajoon tey bakkan ñu joxe ko ñoom ngir bëgg li ma bëgg a taxawal mën a am sëñ Modou mi kenn la ci ñooñee waaw man na ma seede sëñ Tuubaa ne kenn la ci ñoom ñooñu ci pas-pas bam ak pësteefam waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax liyasif tuusal xawli wal tasqini biha wa wasiwa lil masa يا ربي والغبار سلامي بالمصباح عني جلوتا عليه صلاة منك في بها عسلت بي كبريت وعد بي مربيا عليه سلام منك يكفيني الخبار لقد سقت لي في البر ما كنت راجيا بجاه الذي سيرته الخل والحبار موت بعيني فخني من العدا إلهي ودي وجه الرجوع لنا تبا موت بعيني فخني من العدا إلهي ودي وجه الرجوع لنا تبا أجرت الذي قد كان يرجو إجارة رسل الهدى وجه وتكفي الغدوان هديت الذي قد كان يبدي جعله أنوسي في الأسرار يا ربي والهدى لك الشكر والرضوان والحمد سرمدا ولا سكني في كونك الله والرب عجبت لك بالذكر والشكر

baax baax a baax a baax waaw di la ndokkalaat si bis bu baax mu mel ni da dañoo dañoo dañoo toll si joxe xéwal yi waaye mu mel ni bàyyiwoo koog mbokk taalibe bi da ngaa jiitu ànd ak ñoom. ah waa baax na waa baax na waaw sant rek sant rek ndax bis bi mooy bisub liggéey la moo tax moo tax maanaam duñ ci yëg ne dañoo war a sol ay garam boobu dem ci kër ga toog ca climatiseur yaag wala ca bâche ba rek dañu ànd ak liggéey bi liggéey ndax liggéeyal Serigne Touba moom jëf jël la tudd jëf lu waay jëf yaa ko moom loolu mooy liggéeyal Serigne Touba lu waay jëf yaa ko moom Serigne bi lu coow li coow li bari bari yoon yi moom yoonu jëf la moo tax duñu ko yéeg sax coono yeeg lépp duñu ko yëg li nañ ci nekk rek liggéeyal sëriñ bi waaw ba ci kanam rek danañ wax waaye waxtu yi moom waxtu liggéey la تحزني وتسفل لي الصعبان مددت يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا أنس الوس في الربا مددت يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا أنس الوس في الربا نفيت الأذى ñu ngi nuyu bu baax di mel na ñu ngi ci wàññi fii taxaw ak soxna Fama mi nga xam ne moo bokk ci daayira Makaarimul Axlaaq bu Seyd Abdou Karim mbakke ñu fekk leen fii ngeen na ci daanaka ci xéewal yi yaakaar naa lii moo jëm ci reer yi a ngeen présenté wu wax seen taxawaay ak euh, para yi nga xam ni moom ngeen di préparé nii lu jëm ci reer yi. waaw ñu ngi yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi waajur di gëm sëriñ Touba te di ko yaakaar te di ko wóolu di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke lu mu yàgg fi te wér ndax sëñ Mountakha sax laa war a jiite waaye bëgg ma bëgg sëñ Abdou Karim Mbacke dafa yéeme ñu ñëw fi tey nag ci liggéey bii nga xam ne tey liggéey liggéeyu sëriñ Touba la te nga xam ne sunu dund ak sunu àdduna lépp sëñ Touba lañ ko jox sunu yàpp yaram sax jox nañ ko sëñ Touba nag ndax gisuñu dara lu sëriñ Touba. kon bis bi bu amee ñu ñëw fi bu laajee war nañ cee mën a wax dara en tant que jëwriñ kër sëñ Abdou Karim Mbacké Fall ñu fekk si fi jëwriñ Amadou nga xam ne moom it ku bëgg sëñ Abdou Karim Mbacké Fall la wooñu nañu bis bii nañ ci teew te buñ ci teewee lañ ca war a wax lépp nañ ko wax lañ ca war a def nañ ko def muy sellal rafetal ba mu baax ngir jëmbi sëriñ bi fi nekk tey